léegi ñu wax ci daj dëpp gi moy li fi des gis nañ ni samedi bi le 28 Bombardier dina dajeeg ak amassène muy combat royal. tamit amul benn mbër bu wu nek roi des arènes ki ko nekk instant bi yow yalla def am fu ngeen jaar daan nga ko keneen gi jottu bu leen bëré sa xel mu ngi si ñooñu voilà. wa bien sûr parce que ay champion lañu ay mbër lañu def nañu fi li ñepp def lolo waral ñuy wajj seen bés bi samedi ñu leen ci ñaanal jamm xam nga ñew daanante ci jamm ak salam mu baña a am benn problème ki daan daan ki daanu daanu parce que lam doon la tëddee comme niñ ko waxe deug la sama ay naataango lañ c'est normal ma bëre ak ñom te samedi inshallah allah lamb ja ma nga fa dina ci jëmb dakar pajal ci lingom ak kané bu mu saf saf inshallah allah bi mo nañ ko xaarat non bul son non day tew taktirib bi fo mu wacc ci samedi inshallah allah non mënul ñak incha allah. ñaan ku daan ku daanu. non yëpp benn la ci man du dëgg ñoom bëre naa xëy na bëre naa ak Bombardier mësuma bëre ak Amat Sen mais nag bu ma sañoon xam ku daan ku daanu yëpp daal en tout cas Tapha pare na pour bëre ak yow waaw laajuma ci kenn nag kii daan naa ko soxlawu ma ma koy laaj keneen ki mosuñoo bëre ku daan ku daanu yëpp pare naa waaye en même temps di di di di ñaanal Pape Diallis bi nga xam ne moo organisé lamb ji xam nga di ko ñaanal lépp lu mu ci mébét la ne mu am ko ci quoi parce que yoon la ñu jàppale ko parce que gis nañu saison ren bi bu nekkul woon ak moom mu naan affaire yi na am fu mu sooxee quoi parce que vraiment dox na ci ay jéego yu mag a mag mag parce que quatre combats yu mag wala cinq yu mag ci année bi nga taxawal ko yombul te moom def na lool vraiment maa ngi koy remercier bu baax grand jaajëf.